way xarala yu bees yi di jumtukaay yoo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy jëfandikoo lu bari ndax amul lu muy yàq wala déet ñenn ci askan wi nag wuute ci ay xalaat loolu ñenn ñi di ko rafetlu ngir jëriñ lu leen amal. en fait réseaux sociaux yi mën naa wax ni ah, am nañ avantage aussi. avantage bi mooy par exemple ñun élèves yi man nañ si euh, comment dirais-je mën nañ utiliser internet bi juste pour pour jàng suñu leçon yi en plus di si di si jëlee quelques bagages yu bëri yoo xamante ne mën nañu aider suñuy dissertation ak euh, suñuy commentaire yoo xamante ni moom baax na dina ci mën a jëriñu di si mel ne ñuy dugg euh, Play Store di télécharger ay application yoo xamante ni dina ci mën a jëriñu li ci mel ne ay dictionnaire français anglais et tout ça espagnol yooyu dinañ mën a jëriñ. xam nga san dépend parce que nit ñi dañoo bari te wuute. mais ku ci ne ak sa appréciation rek mais de toute façon moom réseaux sociaux yi c'est profitable ak ñi xamante ni ñoom xam nañ ñoom dina leen mën a jëriñ bu bari moom. lépp loo xamante ni ay luñ ci créé la duggee Google ak yooyu def ay recherche ak yu demee noonu moom mën nga ci ay recherche mën xool loo xamut. bu ñu waxee internet boo ci demee pour ma jàpp naa da gis da gis yu bari yoo xamante ni da gis élèves benn classe ñu benn groupe WhatsApp. tout ça genre yooyu noonu. ci des di ñaalu bu baax lu mën a yàq lu bari. am na inconvénient par exemple Sinap ay affaire ñaaxarañ lu a si ni dañuy jël affaire yi Sinap beeg yooyu di xam nga di si wane seen awra yeeg yooyu alors que loolu demeewul baaxut du du exemple bu rafet ci ci société bi quoi. ñoom mauvais sens bi la ñuy jël parce que jàpp nañ à chaque instant fu ñu nekk dañoo war di montrer information yu war a xew ci dëkk bi yëpp tout lu ñuy def sax léegi nit ñi fàtte réseaux sociaux maanaam daf ñoo coloniser réseaux sociaux mën naa wax loolu noonu. non danger moom mi ngi ci moom parce que mën nañ dugg foo xam ne waruñu fa dugg mën nañ leen dugal ci yoo xamante ne baaxut mu exposer seen image yóbbu leen ci loo xamante ni moom vraiment après c'est regrettable. Ah, maanaam sociaux yi conséquences muy joxe bëri na torop. waaye lu ci mënti xew am na ñu koy rafetlu ngir lim leen di jëriñ waaye am na ñu koy ñaawlu ngir li mën a yàq lu bari. ñi ngi ñaax askan wi bu baax ngir ñu gën koo moytu te xoolaat bu baax niñ koy jëfandikoo. noonu aussi te xamuñu ko conséquences yi maa ngi leen di maa ngi leen di leen di Hmm, comment dirais-je woo pour ñu pour ñu pour ñu xam nga ñu wàññi yi ñuy def yooyu nag parce que dafa rafetul voilà. parce que bi amee un peu de temps rek war nañoo dem ba dem ñu xool ko livre parce que daa am bu ñu ci jariñ moo gën ñu nekk ko ci Facebook bi et WhatsApp bi ñu xalaat bu baax lan moo mën a développer suñu njàng. vraiment di gën a sensibiliser sénégalais yi comme lii phénomène bu bees la te xew ñi ci quoi. di def attention bu baax ci réseaux sociaux yi te lépp loo xam dañ ko ci a def ñu laajte daal. Euh, man li may woote ci kàddu yi mooy ñu def très bien attention. leen di ñaan daal buñ ci buñ buñ ciy dugg naan maam nañ ci dugg ci loo xam ni maam lu leer nañ lay doon yaa may dégg waaw ndax Facebook moom dafa xaw a